l'invité de PEF c'est parti pour 26 minutes de euh, direct ak euh, moom euh, PEF et Pierre-Edouard Faye il est déjà sur le plateau Pierre-Edouard maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, Aïcha di euh, nuyu également ñëpp ñu ñu suivre euh, jamono ji. Mm-hmm. ak ñi ma fekk ci plateau bi ah Salma. waaw maa leen raw. da doon feetu dem daa déserté daa déserté. <laughs> def lu ko saf ah. te kenn du wax voilà ak sama invité Issa Oumar Bass. alors monsieur Bass ñu ngi lay nuyu Issa Oumar Bass samay fàttali yow yaay président association euh, pour la promotion des produits agricoles du Sénégal ni lay dalal bu baax a baax ci Réveil des Sans Voix. maa ngi lay jaajëfal di la nuyu di nuyu euh, ñëpp ñi nekk ci plateau bi. di mhm. nuyu tamit ñëpp ñi nekk di déglu. ak yow di nga sekk ak waxtaan nag léegi léegi Pierre Edouard Faye mais en attendant am na keneen ku ñu dabu ci plateau bi di borom la chronique du jour euh, Pape Matar maa ngi leen nuyu tey jàmm laa woote. <laughs> maa ngi lay fay bu baax woote ba histoire woote ba dara jàmm laa woote dama laa nuyu a baax. Euh, di nuyu Pierre Edouard ñi ne ci euh, plateau bi invité bi ak euh, Salma. Mhm. di nuyu Sénégal yi nga xamante ne dañu bàyyi seen émission duñu suivre. si kanam jàmm ngeen fas yéene door chronique du jour. sujet bu neex la waaw sujet bu neex damay xaar suspense tuuti ci kanam rek. sama dina leen ko wax dafa doy waar te yow da ngaa doy waar. ñu neex lay joxe ñaar ñu doy waar ñoo jàkkaarloo. sujet ah, ci kanam dinañ ci waxtaan incha allah <laughs> incha allah rabi alors Pierre-Edouard Faye mhm. ma bàyyi la ak sa invité euh, monsieur Issa Omar Bass. Issa Omar Bass nekk euh, président de l'association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal di APASEN ñuy continuer rek di waxtaanee euh, mbirum euh, soble bi. temps yële amoon na fi pénurie bu mag amoon tension bu mag également sur les prix ñu ngi ju jëm ci màggal xam naa dinañ si ñëw tout à l'heure mais vendredi passé muy le 11 dañoo recevoir oon li nga xam ne mooy 7000 tonnes. Euh, doñoo ci port bu autonome bu Dakar le ministre du commerce annoncé waat que ni le 25 bii di ñëw dinañu amaat yeneen 7000 tonnes donc le tout war a nekk 14000 tonnes est-ce que loolu euh, doy na ngir mën a baisser tension bi nga xam ni moo amoon ci euh, soble bi. li ñuy consommer si soble weer wu nekk mille tonnes la donc boo indee 14000 tonnes. dafa mel ni genn wàll ci li nga xamante ni loolu la ñuy soxla ci weer mën a consommer 15 jours rek rek waaw à peu waaw donc boo ne 30 000 ton sax à peu près 1000 euh, tonnes la ñuy par euh, par jour euh, ñuy waajal màggal gi donc bu màggal gi ñëwee tamit donc day day yokk li ñuy consommer si màggal gi rek mën na nekk à peu ci màggal gi kese mën na nekk à peu cinq cent tonnes par par jour ñetti fan donc euh, loolu lu bëri la ci ci màggal gi rek laa wax en plus de li nga xamante ni loolu la ñuy soxla feneen euh, donc loolu mën na tax ba ñu am peut-être disponibilité ci 14 euh, jours yooyu mais xam naa ni ñu ngi négocier tamit feneen Maroc ak yeneen réew yi pour xool naka la ñuy indee. parce que 14000 yi Hollande la jóge defe naa Maroc la jóge ah. Maroc après lay ñëw Maroc Maroc la jógee waaw ñuy ñuy pour yokk. Mm-hmm. waaw xam nga mais man li may wax ci wàllum euh, problème soble du du problème soble ren du du soble ah. ñun dañuy concentré aussi soble bi mais légumes yëpp la euh, boo ko seetloo légumes yëpp prix yi ñoo yokk ren mais bàyyiwuñu xel bu baax ci yeneen yi euh, boo ko comparé ak daaw léegi nag problème bi mooy lan lu tax mu yokk. ak euh, lan la ñuy war a mën a def pour que mu bañ a yokkuwaat déwén parce que ni mu niñ niñ ko ni mu ko gisee nii euh, xalaat naa ni bu ñu jëlul ay mesures yu strictes yoo xamante ni mën nañu dimbali ñu génn si situation bi euh, déwén mën nañu nekk d'abord mën nañu continuer di nekk situation fii moom ba ba année bi jeex bu leen yaakaar ni prix soble dina wàcc 800 francs le kilo lool moom. Ah du mën a nekk. tension bi day continuer ba. non day mm. pourquoi parce tout simplement. Euh, facteur exogène la facteur exogène mooy lan mooy dépendance bi ñu am ci soble ci yeneen réew yi du soble rek euh, carotte la même chose euh, ci Europe par exemple ci Maroc wala wala wala Hollande te heure yi ñoom dañuy nekk di jànkonteel ak ay jafe-jafe yoo yu tar yoo xamante ni yooyu ñoo tax ba njëg yi yokk bu dee heure bi boo demee Europe ñu ngi jaayee saaku soble à peu quinze mille francs CFA euh, boo si yokkee transport bi nga yokk si manutention bu àggee fii nga yokk si bénéfice yi nga xamante ni yooyu la euh, commerçant yi yi ko importe yi demi grossiste yi grossiste yi détaillants yi ñoom ñëpp euh, liñ si yokk pour ñu am seen bénéfice forcément il faut que mu jege 1000 francs bu ko ëppul mm-hmm. donc te fii ba at bi jeex c'est gisuma naka la ñu mën a def pour ñu mën a euh, wàññi prix yi xanaa peut-être li nguur gi ma war a mën a def mooy wàññi tax à l'importation yi wala mu éliminer ko complètement pour mu mën a soulager tuuti prix yi mais de toute façon loolu pour man ay euh, dafa mel ni nga am góom rek ngay nga ciy def bandage au lieu que nga ñëw jéem a xool lan moo euh, indi góom bi pour nga mën ko faj définitivement. Mmh. ren. opportunité bu mag a mag a mag la ñuy raté fii occasion bu mag la ñuy raté pour positionner Sénégal comme étant un grand pays exportateur de légumes li tax ma wax ko mooy euh, suñuy concurrent yi gën a rëy euh, fii en Afrique de l'Ouest c'était le Maroc mais les Marocains avertir nañu à temps avertir nañu depuis le début de l'année ñu ne ñu ñoom ñu ngi jànkuwanteel ak ay jafe-jafe yu bëri bëri yoo xamante ni dina tax ba ñoom duñu ñu mën a exporter dañuy interdire seen royaume moo interdire exportation légumes ci Afrique de l'Ouest yëgal nañu ko à temps donc loolu bi ñu ko yëgee ñun te ñu xam ni en Europe am na bekkoor bu metti bu fa nekk boo xamante ni tax na ba du ñu mën a bay légumes yu doy donc ñun am nañu ndox am nañu lépp lu ñu soxla li ñu waroon a def mooy positionné wu pour nga xam ñu remplacer Maroc ñu remplacer Hollande ci exportation ci Afrique de l'Ouest. est que jël nañu yoon boobu. non jëluñu yoon boobu li li ma expliqué la lu tax jëluñu ren d'abord fii au Sénégal lan moo tax ñu am déficit li tax ñu am déficit li ko li li si li si jiitu mooy producteurs yu bëri yoo xamante ni loolu la ñuy spécialisé wu mu doon Potou gànjul mu doon dans la vallée du fleuve mu doon fële euh, Ngomen li ñu doon bay dafa wàññeeku ñi doon bay dañu wàññeeku. li tax ñu wàññeeku mooy ñi bëri dañu am ay bor mënuñu fay seeni bor euh, donc mënuñu dem encore dem lebi ji am tamit ñoo xamante ni dañuy yàqule yoo xamante ni dañuy tàmm di bay mais chaque année dañuy am surproduction compétition bi metti ñu duñu mën a euh, jaay li nga xamante ni moom la ñuy bay ñu am euh, ay perte perte post récolte yu bëri bëri bëri perce post récolte yooyu nag ñoo tax ba ñu yàqule lu bëri ba reen mënuñu bay donc bi ñu amee problème bi Maroc annoncé que moom du mën a jaay dans les pays de l'Afrique de l'Ouest li ñu waroon a njëkk a def mooy def planification pour dimbali baykat yi nga xamante ni dañu am ay jafe-jafe ci financement dimbali leen si financement pour que ñu mën a euh, génn si jafe-jafe yooyu comme ça ñu mën a liggéey. boo jëlee euh, mais mais bien mais bien au contraire defuñu ko. defuñu ko non seulement defuñu ko mais restriction yi ak problème pour accès. Euh, financement euh, pour dans euh, agriculture surtout de la part des institutions financières c'est c'est trop. Euh, on nous dit que da ngeen présenté ay garanties. xam nga moo tax bëgg lebal wala da dul fay vous êtes des mauvais payeurs wala. non non xam nga la LBA banque agricole nguur gi moo ko sos pour que mu accompagner baykat yi ci seen i ci ci seen i soxla ci wàllu financement. mais il n'est pas en de elle n'est pas en train de faire le elle n'est vraiment pas en train d'accompagner du tout problème yi ñuy jànkonteel yëpp c'est à ce niveau là euh, secteur financier bi nekkuñu du investir bu ñu la waxee ni trois pour cent rek ci financement agriculture mooy jógee si euh, secteur foofu ça 97 pour cent yi feneen lay jógee donc loolu ça pose problème beneen problème bi mooy problème planification agriculture loolu defuñu ko donc tout ça loolu yëpp boo ko boolee dafay dafay dafay tax ba li nga xamante ni waroon na nekk euh, occasion chance opportunité pour Sénégal mën a nekk un grand pays producteur exportateur de légumes euh, ñu ngi nekk ci situation handicap ba nga xamante ni dépendance bi mu ngën di yokk donc loolu mooy suñu problème te foofu la ñu waroon a liggéey e ça vraiment c'est c'est c'est un très sérieux problème foofu la ñu waroon liggéey li nga xamante ni occasion la bon maa ngi dégg ñuy wax ni way euh, amuñu euh, ay unité de stockage loolu moo tax ñu am ay problème non waaw loolu la ministre bi wax ministre bi nee na en réalité am nañu autosuffisance en oignon par exemple mais problème bi rek mooy stockage la ñu am problème depuis ñaata at yaa ngi dégg ñuy wax ni dañu am problème stockage lu tax bi ñuy tàmbalee di am problème stockage ba tey defuñu benn jéego ci jëm ci loolu problème loolu am nañu problème am nañu stockage am nañu ay unité de stockage yu bëri si zone des Niayes bi boo boo jëlee sàngal boo jógee Sangalkam dem ba njëbeen Gànjool ay unité de stockage ñoo tegaloo foofu ba nga àgg Gànjool bon fi ñuy gën a bay soble fii si Sénégal euh, pootu Gànjool foofu moo ëpp unité de stockage si Sénégal si wàllum euh, pour yu jëm si wàllu soble problème bi c'est pas que amuñu unité de stockage xam la mooy problème bi mm. gestion bi ñu am ak tamit unité yi est-ce que c'est adapté aux c'est-à-dire dañuy ñëw tabax ay unité de stockage jox ko ñoo xamante ni ils ne pas en mesure amuñu capacité de gestion bi ñu soxla mu yàqu boo demee Gandiol foofu moo ëpp unité de stockage yoo xamante ni defar nañ ko dépensé nañ ci ay milliards mhm. mais dafa tëj kenn nekkul di ci liggéey wala ñu transformer ko garage euh, mécanicien wala ñu transformer ko mu nekk fu ñuy denc fumier nag wala fumier xar loolu moo fa nekk il faut aller il faut aller Poutou am na ay ay unité de stockage mais kenn nekkul di ko utiliser yeneen yi c' pas adapté. par exemple responsabilité kan la état wala yéen producteurs yi. c' <coughs> est à deux niveaux balaa ngay euh, tabax unité de stockage. da nga war a toog ak ñi nga xamante ni ci ñoom la jëm ngeen négocier ngeen waxtaan nga ne ñu wax la fan lañ ko naree naka lañ ko naree utiliser. Mhm. loolu benn la boo defaree loo xamante ni méngoowul ak ñoom li ñu soxla. di nga indi problème. et puis il faut une formation également. merci l'autre aussi nga def nga def formation renforcement de capacité pour gestion bi. Mhm. leneen li encore jox ko koo xamante ni soxla na ko te mën na ko yore. Mhm. Euh, xaw ma ndax comprendre loolu yëpp boo ko deful ça pose problème xoolal euh, comment dirais-je euh, le marché d'intérêt national bi ñuy tabax fii Diamniadio ñaata milliards lañ ci dugal. Mhm. il faut aller là-bas voir. ce n'est pas utilisé c'est sous-utilisé c'est sous-utilisé mhm. parce que ce n'est pas adapté aux besoins mën a ñëw tabax marché d'intérêt national fii Diamniadio kii nekk Fuuta na la jëlee euh, ba kii am nakal tuddati marchandise am ñëw indi ko di ko fa denc ce n'est pas possible te unité yi de stockage yi fa nekk est-ce que c'est adapté aux besoins des producteurs loolu yëpp loo xamante ni la mën nga jël ay milliards dépose euh, nga ne waaw j'ai investi des milliards mais euh, ñu gars yi ñëwuñu di ko utiliser non c'est parce que c'est pas adapté à leurs besoins te parce que sori na leen c'est parce que li ñu yow toogoo waxtaan ak ñoom si lan la ñu soxla exactement balaa ngay décider donc loolu mooy suñu problème fi mu nekk nii ren. Mm-hmm. on a raté une une sacrée bonne occasion euh, opportunité bu extraordinaire pour remplacer marocains yi ci wàllum horticulture dans la sous-région on a raté dépendre si ñoom. est-ce qu'on en a les moyens. on a on a les ah moyens. pour vivre bëri yu dugal ci horticulture. xam euh, non dégg mais quand il faut que je reconnaisse ren la direction de l'horticulture a fait des efforts. la direction de l'horticulture a fait beaucoup d'efforts pour accompagner les producteurs en augmentant les subventions en augmentant aussi euh, ci engrais bi nga xamante ni moom la ñu alloué mais li problème bi mooy lan mooy synergie diggante les acteurs Euh, accompagner les producteurs faut euh, que ce soit sur le plan financier que ce soit sur le plan formation que ce soit sur le plan de la commercialisation même bu dee euh, unité bu nekk mu ngi def li mu war a def bu dee amul synergie seen diggante pour ñu mën a planifier li nga xamante ni moom la ñu war a def du ñuy am dinañu jànkuwanteel ak ay jafe-jafe te loolu mooy suñu problème. waaw euh, bëgg a xam rek euh, ndax am nga yaakaar ni que yëf yi dina revenir à la normale ak kañ la ñuy jugee ci jafe-jafe yi nga xamante ne nag chaque année pratiquement Sénégal rencontré ko. pour pour mu revenir à la normale il faut que euh, acteur bu nekk mën a jouer son rôle comme il se doit il faut que synergie bi ñuy bi ñuy soxla. diggante acteurs yi il faut que mu am te loolu pour mu am il faut que ñu nangu ñu toog dans une salle ñu def li ñuy tuddee les assises ñu échanger sur la lan mooy suñu problème exactement. Ah, assises yaa ngi woote depuis ay at gi nii. bu ñu ko defoon ministère nee na soxlawuñu assise bu ñu ko defoon elle est tellement claire que ni soxlawuñu ay assise euh, non clairul bu ñu ko defoon bu ñu ko defoon du ñu nekk situation bi ñu nekk nii tey bu ñu defoon assises yooyu ñu génne ay recommandations yi leer. état bi mu ngi gunge euh, euh, LBA nu mu waree mais LBA nekkul di financer et pourtant ils ont l'appui ils ont tout l'appui de l'État mais boo ñëwee si ñoom même avec les une garantie de l'État nga indi benn lettre de de domiciliation euh, état bi nee la euh, signé avec le par le ministre de l' agriculture signé comme quoi que dama euh, yoreel naa tel organisation tel cent millions li ma leen war a fay ba mu leen di fay si seen compte bu nekk LBA laa koy laa koy joxe compte bi joxe lépp wax leen ni fii laa koy yóbbu donc mën ngeen mën ngeen av dox avance sur ce ce la là aux aux agriculteurs ils ne le font nga indi fa bépp façon garanti boo mënti soxla nga jox leen ko nga ne leen dem FONGIP euh, euh, euh, ñu accorder la garantie nga ñëw indi ko jox leen ko pour ñu accorder la prêt ils na la font pas. mais refus bi le refus il est motivé. lu ñu di wax la leen wax pour motiver. loolu laa la wax bu ñu toogoon ci table. je pense que l'État du Sénégal comprendrul ba restriction yi ak jafe-jafe yi nga xamante ni producteurs yi ñu ngi koy la ak secteur financier bi bu ñu ko comprendre peut-être ñu jël ay mesures donc bu ñuy organiser woon euh, euh, assises yu mel noonu dinañ échange ci biir échange yi ñoom dinañ gën a xam lan moo lan moo tënk euh, producteurs yi dinañ mën a xam lu tax banque yi nekkuñu di lebal producteurs yi ñu gën ko comprendre parce que garantie yi ñu ngi leen di koy jox am nañu fonds de calamité contre les calamités fële au niveau de la LBA c' est du Sénégal qui donne bu dee am na urgence comme bi ñu am nii tey état bi wa euh, ñaata milliards la ñu nekk dépense la dernière fois ils ont accordé euh, président la République moo accordé audience euh, les tailleurs les dawalkatu Jakarta euh, ay mbër yi et cetera pour euh, jox leen xaalis pour dimbali leen mais balaa ngay def loolu ñi nga xamante ni ñoom ñooy. xëcc économie bi. ay sénégalais lañu mm, ñoom nga waroon a non c'est des sénégalais. non non aussi partie waaw mais mais agriculteurs yi ma ne. li yi di di di def fii ci Sénégal. ñu ngi nii di wax waxu soble <laughs> mbëri waxu mbëri ñu defuñu ko. donc te ñoom ñooy xëcc économie bi donc quoi nga bañ leen a pour pourquoi nga bañ leen jox ay fonds de dotation yoo xamante ni mën nañu mën nañu leb si loolu pour ñu mën a liggéey il faut que il faut que ça s'arrête parce que bu dul loolu li ñuy tënk nii tey l'année prochaine ce sera encore pire. léegi Issa état euh, gouvernement annoncé na ni euh, cent milliards la dugal ren ci euh, campagne agricole bi yéen yéen ñi nekk ci secteur horticole est-ce que am ngeen si dara yéen jot ngeen si dara. c'est c'est très c'est très petit. bon gisaguñu de toute façon par exemple génne nañu ay tracteurs yu bëri yoo xamante ni l'État a dit que dañ koy distribuer ñun gisaguñu. gisaguñu certainement que bu campagne bi commencé peut-être ñu euh, jox ñu ay subvention ci euh, engrais wala subvention ci naka la tuddati ci euh, semence mais pour le moment vraiment gisaguñu xaalis bi jóge ci cent milliards yooyu mais même même bu dul même loolu même loolu bu ñu jëloon vingt cinq milliards ci biir cent milliards yooyu ñu déposé ko ci euh, même bu dee même même quinze milliards ça suffit ñu dugal ko ci euh, LBA wala euh, BNDE e. waaw ligne de crédit boo xamante ni ñu ñu ñu ñu obligé ñaari banque yooyu nañuy lebal producteurs yi sur ces fonds là dañ leen di lebal ñuy fay mais duñu mayuñu leen ko lebal la ñu fay ñu lebal la nga fay fond bi nekk foofu di tourner loolu ça aurait pu aider. yaa ngi ne baykat yu bëri amatuñu crédit parce que mënatuñu fay est-ce que du loolu aussi moo tax LBA di réticent si si lebal leen. loo parce que ñu jël xaalis leen ko lebal pare yéen ba fayu ah, leen ah, xam nga loolu préjudice la bi. bu calamité amee bu calamité amee ñëpp xam ni calamité am na. Euh, banque bi mën na mettre en place stratégie boo xamante ni dina ko dimbali pour mu xam Euh, lu tax ba baykat yi fa mënuy fay seen i seen i bor. li koy li ñu koy def rek mooy euh, par exemple bu ñu amee euh, surproduction am ay perte yu bëri yoo xamante ni ñëpp a ngi gis baykat yaa ngi gas di suul seen soble loolu ñëpp a ko xam. Mhm. loolu calamité la loolu boo amee c'est l'État lui-même qui doit prendre des engagements pour. oyofal situation bi oyofal producteurs yi wax banque bi lii si jëli leen ko ci fonds di calamité bi ngeen Euh, continuer di di jàppale baykat yi ils n'ont pas fait du tout loolu mooy suñu situation fi mu nekk nii tey. mais am na am na Aïcha nombre de tonnes d'oignons bu bari bu ñu annoncé je sais plus le nombre le euh, euh, mais fan la toll. muy comment muy comment ah, ah, <laughs> waaw mais xam nga kuy consommer trente mille par par mois boo ko waxee sept mille muy ñëw bon. Hmm. motul daal. matul te fi mu ne nii euh, dañuy nekk di négocier daw euh, Hollande ut foofu dara dem Égypte ut foofu dara dem Maroc ut foofu dara yàlla xam na ni ñun mënoon nañu produire lu ëpp loolu lu ëpp li nga xamante ni moom la ñu soxla pour ñu mën a. diggoon ngeen ñu ne yéen mën ngeen ñu assurer l'autosuffisance. Euh, mi en oignon par exemple. waaye gisuñu tous état bi état bi ci boppam moo wax ni ñun li ñuy li ñuy produire c'est plus que ñuy ñu soxla trois cent quatre-vingts million trois cent quatre-vingt mille tonnes. par par année ñu ngi produire plus de 400 000 tonnes donc loolu li muy tekki mooy vraiment dépasé nañu en terme de production dépasé nañu li nga xamante ni moom la ñu soxla problème bi mooy lan problème bi mooy fan lañ koy fan lañ koy denc ñoom loolu la ñuy wax mais am nañu ay unité de stockage yoo xamante ni li mu soxla mooy réfection li mu soxla mooy bonne gestion mhm. li mu soxla mooy jox ko ñi nga xamante ni mën nañ ko gérer mhm. loolu loolu lañ soxla mais mais mais euh, véritablement euh, bu dee production rek euh, chaque année euh, durant le cinq dernières années surproduction la ñuy def ci. Euh, alors kii spéculation yëpp. monsieur Bass euh, euh, état tamit prévision la gis nañ léegi léegi ba fi environnementaliste bi toogee dafa ne carrément moom bu gisul programme bu doy bu ko doy ci élection présidentielle koo xam ne say suqali environnement moom gisul importance di la di la votel yow par exemple en tant que njiital association pour la promotion des produits agricoles est-ce que jotul tey ngeen di séntu fu sori ne di dénk réew mi war nekk koo xamante ne nii xam na mbay bëgg na mbay te jàpp na mbay mën na suqali développement. pour pourvu ko kooku nekk candidat n'est-ce pas. <laughs> Ah, da ngeen di xool ci candidat yi rek il faut il faut kooku nekk candidat bala ma balaa ñuy xam ni fi ne ni ñu xamuñ kuy candidat de toute façon. Mm-hmm. mais pourvu ko kooku nekk candidat. mais même bu dul euh, moom moo jiitu ki jiitu xam na mbay mais na am programme boo xamante ni leer na ni nii mu ngi euh, fësal mbay mi ci biir programme mm. te bu euh, jëlee euh, fonction bu nekkee président lii dina appliquer li nga xamante ni moom la wax la lay def mm. noonu laa ko gisee mm-hmm. waaw pas forcément mu nekk baykat mais na nekk na am programme boo xamante ni mu fës na ci biir la mm. plan Sénégal émergent am na composante bu rëy boo xamante ni Euh, ci agriculture la jëm mais mise en œuvre bi application bi loolu mooy mooy mooy problème mais ñun on se rend compte que depuis le président Macky Sall bi nekkee plan Sénégal émergent tudd nga ko léegi léegi ñu gis ne que da doon prôné tout le temps autosuffisance en riz autosuffisance en oignon moom jàppoon na ne que loolu war a mën a sotti la et on on espère que defoon na ci les moyens qu'il pour que mu mën a antu est-ce que du un peu yéen producteurs yi wala nga xam ne yéen a mooy mbay mi yéen a ci deful volonté war pour que loolu mën a xam nga mën nga jël mën jël cent milliards nga ne dépensé naa cent milliards pour suqali euh, mbay mi mais fi nga koy dugal ak ni nga koy dugalee loolu ça peut poser problème euh, efficacité bi nga xamante ni moom la ñu soxla efficience mooy ressources yi naka lañ ko utiliser loolu mooy poser problème parfois comme ni mu ko waxee joxe naa exemple ci wàllu euh, comment dire marché d'intérêt national mm-hmm. ñaata milliards lañ fa dugal ñaata milliards lañ fa dugal c'est sous-utilisé parce que ce n'est pas adapté. mais ah. ngeen xaar calamité am. wala situation am wala am. wala ngeen di doog nekk ci plateau yi di wax. pourquoi du ngeen alerter du ngeen dénoncer à temps. non c'est pas alerte xam nga ñëw ci télévision di wax nii man gënaluma li ma gënal mooy toog ak autorités yi échanger ak ñoom parce que nous avons documenté tout ça nu avons des documents qui nous disent voilà la situation lii lan la c'est écrit. léegi voilà des proposition de solutions yoo xamante ni si ñun la jógee mais boo ñëwee fëgg buntu ñu euh, bañ a ubbi. wala ñu bañ la déglu yow loo ci mën. seen ministre leen dalal di leen déglu. non non bon l' ministre c' euh, tane na. Euh, Aly Ngouille Ndiaye vraiment bi mu ñëwee ba tey il fait des efforts pour écouter mais on a perdu presque cinq ans avec celui qui l' a qui l' a remplacé mu Bala Moussa Baldé c' parce que cinq ans pratiquement euh, ci agriculture que vraiment c' en l' air quoi Assom Diatta la même chose parce qu' il n' était pas à la hauteur. mais Aly ni que su ñëwee quand dina indi coppite ndax moom déjà baykat da koy dund yor ay terre et tout mais on se rend compte que ba mu ñëwee ba tey gisuñu trop trop trop de changement euh, bon man mën naa la wax ni que il a fait des efforts en, tout cas de mon point de vue il a fait des efforts pour gunge ñu ci wàllum Euh, engrais il a fait des efforts ci gunge ni ci wàllu subvention yi mm-hmm. donc mënuma wax ni deful dara te bon euh, il, il reste ouvert encore boo ñëwee ci moom boo boo bëggee euh, toutes les recommandations que nous mhm. faisons. Mmh. ça c'est à sa discrétion. jërëjëf. Issa Oumar Bass président association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal di APASEN ñu ngi lay gërëm bu baax ci li nga ñëw tey wuy si suñu invitation ci euh, le réveil bu matinalu Walfadjri ñu ngi lay gërëm bu baax. Mhm. man maa leen di sant leen gërëm bu baax a baax. jaajëfal la bu baax a baax yow tamit Pierre-Edouard Faye l'invité de PEF c'est fini pour aujourd'hui rendez léegi léegi ñu ci la chronique du jour.